dañu fi géej te moo tax ñaari at nga toog ñëwuloo fi euh, ki jóge Tamba ki jóge Ndar ki jógee Kédougou ñoo ñëpp dañuy namb bërëb bi moo tax tey li fi am nii te pareegul parce que heure bi ñu nekk am na ñu ne ci yoon wi ak seeguñu moo tax ba euh, ñu sant yàlla bu baax euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan yàlla tabarkalla nangul ñu suñu ziar ziar bi nag sëñ Babacar Sy radiyallahu taala moo ko instauré ginnaaw bi mu sosee daayiratul kiram 1927 Laji Malick bàyyi fi daayira bàyyi fi ziar mu génne àdduna la sëñ Babacar Sy formé daayiratul kiram bu ñoom Abdou Koña Sall ñoom Abbas Guèye ñoom góor gi Petre Diop ñu dem ba 1930 euh, daayira yooyu mu formé woon dañu fiy ñëw en ordre dispersé ñi dañuy ñëw tey ñi ñëw suba ñi ñëw fin du mois bi ñu ñëw mois bële ñu dem ba yàgg ñu dajaloo ñëw ne ko ñun tey dañu bëggoon nga jàppal ñu bés boo xam ne dañu fi daje ñun ñëpp ñu mën la ziar mën a wax ak yow mën na nga mën ñu ñaanal mën ñu joxaat bind boo xam ne euh, bu ñu delloo kër ya di ko nafar ba déwén moo waral mu jàpp ziar général bi 1930 daayira yi di ñëw te booba waruwaay yombul booba oto yombul euh, tabarkalla ñenn ñi dañ daan dox dañ ko daan dox ay weer pour yëg si rien pour jaa janoog moom ziar ko mu ñaanal leen loolu mooy sababu ziar général bi mu mel na tey euh, euh, lañu la mu doon wax suñ Babacar ñëw leen bala moo xat ñëw leen bala moo xat da ko daan wax lu bari dana xat de dana mas a xat de ñëw leen bala moo xat tey defe naa ne ñëw leen bala moo xat boo xoolee tey lii fi ñëw ci nit kon waxam ba ñëw leen bala moo xat toxuwul ba tey kon la ma waxoon yëpp lay gis nañu tabaarakallaahu loolu mooy li nga xam ne mooy sababu ziar général Thank you.